rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi euh, umpale woo leen ni Sénégal instant yi am na xew-xew bu mag buñ fay waajal muy màggal tuuba ma ñëwoon rek doon leen dénk di dénk sama bopp di fàttali sama bopp di leen fàttali que ni xew-xew boobu du xew-xewu diine màggal Tuubaa du farata du sunna du lu yàlla digle du lu yonent bi daan def du alxuraan du lu saxaaba yi daan def benn famille moo toog daal di inventé xew-xew bii di màggal di màggal Touba daal di inventé événement bi créé événement bi ndax la ndax dañoo jàngat population sénégalaise gis ne kat population bu neex a nax la surtout nag ci wàllu diine ñu daal di créer événement bi di ci woo nit ñi at bu jot may wax ni mbokk ragalal yàlla ci sa tànk yi te xam ne fépp foo jël sa tànk bi teg ko fa yow mal xiyam di ko lay ak yàlla ndax màggal Tuuba bërëb la boo xamante ne yàlla woowu la fa yonent bi woowu la fa ay xew-xew la yoo xamante ne nii ab famille moo ko créé uniquement pour di dund ci kaw sénégalais di ci dund seeni sët di ci dund seeni sëtaati sët di ci dund ma leen di fàttali ne xew-xew yi deful benn njeexintal ci askan wi lan moo am màggal Touba lu dul tëgg way fecc sañse puukare àdduna alalu àdduna kan ngeen gis mu ñibbi si màggal imaanam yéeg bi màggal dalee am ba léeg mës ngeen gis sëriñ bi def discours boo xamante ne dafay delloo nit ñi ci yàlla mësta am man de mësuma koo gis même jamono yi may nekk murit mësuma koo gis màggal du du jot ba ñu xupp jeunesse bi waar leen yee leen gindi leen ci li yàlla digle fàttali leen dee fàttali leen bàmmeel fàttali leen safara fàttali leen aljana sëriñ si duñ ko def dañuy woo nit ñi ba ñu ñëw ñu leen di présenter seen maam yow jullit bi di dem màggal ñi ëpp nag laa wax du ñëpp de mais ñi ëpp ci ñii di dem màggal Touba la plupart chaque jour que je fais pendant trois cent soixante cinq jours ci at bi cinq fois par jour jakk ji dalen di woo len leen sala salaa xayaala falaa ñu lank ba tëdd ci naaj bi duñu wuyu ci sa borom yalla di la 5 cinq fois par jour xayaala salaa xayaala fala nga bañ benn famille woo la ci ab dekk nga bayyi sa liggey bayyi sa yitte bayyi sa lepp dem wuyu ji len te lool non du diine te kat bo len setlo ñi ëpp ci ñi di dem magal, ñi ëpp ci ña fay dem même personne yi nga xamantene ne bu lamb amé ñom ñoy dem bu Wally Seck di tëgg concert ñoom ñooy dem bu Viviane di tëgg concert ñoom ñooy dem bu nawetaan amee ñoom ñooy dem maanaam benn population maanaam benn masse la boo xamante ne nii rek xamuñu fu ñuy taxaw ndeysaan foo leen woo ñu wuy la caaxaan boo organisé pare nañ pour wuy ji la pour lan ndax réeree suñu diine moo ñu ko yóbbee pour lan ñàkk xam objectif bi tax ñu ñëw ci kaw suuf moo ñu yóbbee loolu ragalal yàlla ci sa cër yi mbokk yi nañ ragal yàlla bu baax ci suñu cër yi gis nga yow mal xiyaam yàlla dafay damm suñu làmmiñ yi suñu cër yi ñoo fay nekk di seede sa tànk yi foo ko mën a foo ko mës a teg fu dul fu neex yàlla dinga ko la layoog yàlla yow mal xiyaam xam nga àdduna fii moom sa làmmiñ moom mooy wax di wax rek sa cër yi ne tekk tekkaaral yow mal xiyaam contraire lay nekk yàlla dafay damm làmmiñ bi bàyyi cër yi ñuy seede yow jullit bi ñett bërëb kese nga am droit tukki fa pour jaamu yàlla Makka Médine ak Aqsa point barre feneen foo dem pour jaamu yàlla du yàlla moo la fa woo màggal Tuubaa lan moo fa am bokkaale bidaa tëgg way fecc puukare alalu àdduna wanewu kese moo am màggal Tuubaa jaxasoo góor ak jigéen ñuy shirk di bokkaale yàlla di bokkaale yàlla di bokkaale yàlla di bokkaale yàlla ba gudd jot ñu dem tëddi demal jumaa ja ay jullit ngay fekk ñuy bërëngu ci bàmmeel yi ay xubuuri yoon di jaamu ay bàmmeel sukk ci bàmmeel yi di ñaan seeni soxla bay jooy dañu waxante dëgg rek mais yonent bi sallallahu alayhi wa bu dellu si waatoon ñu invité ko màggal Touba mu gis ni fa jullit ñi mel dina am lu ko metti de dina laajte ndax ñii ci sama communauté lañ bokk waaye lii yëpp dara yóbbeewuñu ko lu dul alxuraan ak sunna réeree suñu diine rek moo ñu yóbbee yëpp yàlla na yàlla jubal ma jubal leen asalaamaaleykum wa rahmatullah